ren également ñu ñëw fii ci bés bii ci turu président de la république maa ngi tàmbali nuyu di ziar Sëriñ Sidi Maxtar Mbacké xalif général kullu murid maa ngi nuyu mboolem kilifa diine yi fi ne te jàpp naa ne ci niñ ko limee léegi benn famille desut di nuyu kilifay aada yi te niñ ko limee mel na ni senegal kenn desul tey maa ngi beral nuyoo Serigne Abo Mbacké xalif kër Serigne Mamadou Fadel Mbacké ci suñu xarit di suñu kóllëre démb laata tey di ñëw di ko nuyu moom ak i rakkam ak njaboot ak Serigne Touba gi fi yëpp toog yëpp fii ci jotaay bi bi président daf ñëw yabal ci bés bi ñu ànd ak délégation boo xam ne bii ñeenti ministre ñu ngi ci. man mii mu sant ma ma jiite ko ma ànd ministre Omar Youm ministre de la décentralisation et des collectivités locales ànd ministre Mansour Sy ministre de la fonction publique et du travail ànd ak ministre Khadim Diop ministre de la restructuration et d'aménagement des zones inondées kenn ku nekk gis na liggéeyam fii ci Touba muy doom ci kër gi ñu ngi ànd ak conseil spécial Cheikh Mbacké Sakho di ànd ak également Mansour Diène mu nga fële toog ci biir waaye ñu ànd daanaka sax moo ñu fi jiitu yu bari moo ñu fi doxal doxal ko fi président laata tey di ñëw député yi nga xam ne ñi ngi ci bi ñëw nañ kenn du leen ràññee ak taalibe yi ñu ngi ànd ak gouverneur ànd ak préfet solo si nga xam ne si moom la bés bi am su njabootu Serigne Fallou ak ci taalibe yu murid moo tax président ne nañu ko fi teewal muy sa kóllëre mu am également kóllëre gu muy sàmm ak waa Kër Sëñ Fall dañuy yebal téléphoné wuñ ñu rek nañu président nee na nga demal ko daf ma wool boppam ma toog bureau mu bàttale ma daf may tegtal ne ma bu bés baa nag ma demal ci sëriñ Abo ak ci njaboot nga demee nga ziareel ñu sëñ Sidi Maxtaar nga ne leen bés bi sama bés bi bés bi nag di fàttaliku bés bu sëñ Mamadou Fadel Mbacké deuxième xalif des Mourides nga ne àdduna muy vingt-septième jour rajab tombe comme ni mu jiitu waxee léegi bés bi nga xam ne bii moom la julli juróom wàcc ci jaam yi ñaari événement yooyu bokk anniversaire du ma sori ci sëñ Fallu Mbakke ndaxte jàpp naa ne mënuma cee wax lu ëpp li sëñ Bass Abdou Khadre wax mënuma wax lu raw li sëñ Dramé wax mënuma wax lu raw chef de village wax léegi nii kon ci wàll woowu damay tënku seen kàddu rek bokk koog ñoom ah, njabootu sëñ Fallou tàmbali def bés bi jàpp naa ci sëñ Modou Bousso Dieng boobaak léegi mu xaw a yàgg doon delloo njukkal sëriñ Fallou Mbacke mi nga xam ne moo indi màggal gi fii ci Touba. li ñuy roy ci sëriñ Fallou. bari na bokk na ci moom jikko ju rafet jikko ju rafet tax na jàpp naa ne te du man rek sax Sëriñ Fallu kenn ëpp koy turandoo ci Sénégal te bokk na li tax ñuy tuddee nit nag jikko juboo woon na ak boroomam ba lu mu ko ñaan mu nangu juboo woon na ak ñépp ñi mu maaseel jamono foo dem ci réew mi danga dégg li ma sëriñ Fallou defal waaye doo faral di dégg lim ma def sëriñ bi bu nawet daan jot bu daan jub sëriñ Fallou daan ñaax taalibe yi ñu waajal ko daan ñaan ñu taxaw ci te daan ñaan yàlla indi ko jàmm kon bu ñu tollee fii nawet di jub xel yépp dana dem ci moom te sëñ yow mi fi toog yaay sëñ Fall kon bu ñu leen gisee gis njaboot gi nawet bi biir suñu xel dana ci dal moo tax ñuy sàkku sëriñ bi ci barkeb bés bi ci barkeb borom bés bi nga ñaanal réew mi nawetu jàmm nawet bu bari ndox te indi jàmm ñu bay te ñoral nga ñaanal président Macky Sall yéen yi ma am ci réew mi fi mu ko bëgg yeggalee te muy ñuy jàmm ñun ñëpp yàlla may ko kàttan gu mu ko yeggale sëriñ bi xanaa dañuy tëj suñu kàddu di la ñaanal yàlla na nga fi yàgg lool te wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala